seen lépp ci fu suuf la le problème foncier déglu leen problème mu littoral bi gisuñu ko benn yoon ci rapport balaa nga naan naam ne fa dafa nekkul ci rapport bi moo tax bu fi nekkoon moo wax leen page déglu leen ci commission wax nañu ci lu jëm ci wàllum foncier mais gis nañ ne rapport bi ba mu jeex tàkk. président de la république nee na dafa initier cent mille logements sociaux confiés au ministre de l'urbanisme Abdoulaye Seydou Sow ñin nag li ñu seetlu boo déggee ndimbal njaboot suñ tund wële moo fekk baax muy wàllum banlieue ñu yor suñu littoral boo xam ne ay pont ay punkal yoo xam ne dañoo bokk APR ñu jox leen ci suñu suusee rawatina géejawaay loo xam ne ñun dañ ci am ay preuve yu leer déglu leen rek waxuñu ko fii ci wàllum waxuñu ko ci wàllum rapport bi loolu génn fi te génne na commission beneen bi monsieur le ministre coowu pétrole bi dafa intéressé Sénégalais yëpp ñëw leen léegi page 22 kaay leen page 22 ñëw leen foofu da ngeen noppi dañu ne. sur les revenus de l'État dans le secteur des hydrocarbures, monsieur le ministre, votre rapporteur le noir, il dira qu'il provient de trois sources. La première, c'est la part de Petrosen dans le profit pétrolier entre 10 et 20 pour cent entre la ñu wax vous devez être précis mais lëndëm weesuwul chaque jour ngeen naan entre lii na leer booboy benn la deuxième constitue la part de l'État dans le profits pétroliers, en effet, suivant l'article 22 du dispositif sur les contrats de recherche et de partage de production, contrats de recherche, etc., l'État possède d'environ 35% du profit généré sur chaque baril. Sur chaque baril, c'est ce que vous fii nag da ngeen a tëb lu jëm ci wàllum royalties yi les occidentaux lañ bëgg a xam ñoom ñaata lañuy am ci bërigo pétrole bu ne loolu anglais di wooyee royalties waaye déglu leen waaye do di ngeen noppi de pétrole bi moo bëgg moo tax ngeen bëgg a am troisième mandat te du fi amee di ngeen ñibbi monsieur le ministre règlement inter je waaw di ngeen noppi de di ngeen noppi di ngeen di ngeen noppi cinq minute la de sinon du ma fi jóge petrole bee tax ngeen bëgg fee toog te jeexal ngeen di ngeen ñibbi euh, pour ce qui est du règlement intérieur mënuñu koo bañ a wax mënuñu fee nekk di voter ay loi ñu changer loi à notre insu ñun ñooy voter les lois ñuy changer loi à notre insu falsification la du modification comme le di ab Mbow modifié wuñ dara. actualisé wuñ dara falsification la tappale la règlement intérieur bii loolay dëgg wasalaam